Alors, euh, Monsieur Diagne Ndiaye, euh, membre du CUO, la France a voté pour lui <laughs> Oui, bien sûr. C'est vrai que pour nous, c'est c'est vraiment euh, une très bonne nouvelle. On est, on est vraiment très content euh, de voir Mamadou rejoindre les, les membres du CIO. C'est quelqu'un qui compte énormément aujourd'hui dans le, dans le, sport international. Ça fait longtemps qu'il qu est présent. Euh, et c'est vrai que bon, voilà, on, a, on a de bonnes relations euh, entre le, la France et le, Sénégal. Euh, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement au CIO je pense que c'est important aujourd'hui que le CIO ait vraiment cette culture universelle. Et, je crois que Mamadou, à travers le Sénégal, l'Afrique, mais aussi son ouverture un peu sur le monde. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui, euh, euh qui je trouve a un esprit qui est très, euh, ouvert. Euh, pour réussir, quand on traite une problématique, à avoir pas seulement un seul point de vue, mais au contraire de réussir à élargir un peu la réflexion. Et, et je pense que Mamadou va être très, influent de ce point de vue pour nous aider à apporter un peu plus de diversité finalement au sein du CIO. Échange de bons procédés, le Sénégal va soutenir la candidature de Paris pour les prochains JO. Alors ça, je ne sais pas. Euh, je pense qu'en tous les cas, on aura beaucoup de plaisir à, rencontrer euh, le Sénégal et expliquer, et présenter notre, projet, parce qu'effectivement, on pense que ça doit être un beau projet. Et on, on compte aussi sur les retours, les feedbacks euh, du Sénégal pour améliorer ce, ce dossier, prendre en compte les, les attentes finalement euh, du Sénégal et du sport africain pour faire en sorte que si Paris et les Jeux, ce soit aussi utile pour, euh, le sport africain. Merci. beaucoup. Oui, président Lamine Diak, euh, Mamadou Ndiaye vient d'être élu membre du CIO. Vous êtes le président de l'IAF, sénégalais également. Qu'est-ce que représente cette élection pour vous je, crois que l'élection représente quand même un, le retour d'un Sénégalais au titre du Sénégal au CIO. Nous avons eu, dès les années 60, le membre du CIO, à son décès. Le juge Kebamba l'a remplacé. Il est parti avant euh, euh, euh, son âge de retraite en mettant Youssou Ndiaye pour a été atteint par la limite d'âge. Donc, c'était normal qu'on se batte pour avoir un, un, un, membre sénégalais du CIO, parce que moi je suis au CIO, sénégalais, mais je suis quand même athlétiste. Je suis entré en tant que président de la Fédération internationale d'athlétisme en

ils prennent le relais. justement, un passage de témoin entre Jacques et Diagne. Comme juste le dernier, dernier, On peut considérer ça comme un passage de relais, ci wolof président Lamine Diack euh, Mamadou Diagne Ndiaye ñu euh, tànn ko bokk léegi ci CIO yow nga jiite IAF euh, loolu lan la représenté pour Lamine Diack ak Sénégal. Eh, eh, Duggi Jaaja ci sëy dafa continuer une tradition parce que ki njëkk a dugg sëy yow euh, président Amadou Barry déjà dans les années après les jeux africains yi en les jeux de l'amitié en 63 lañ koy lire CIO li mu gaañoo Kéba wutu ko Kéba nekk CIO c'est le début des années 70 mais deux mille deux mille six ou sept mu dem avant la d'atteindre la sa limite d'âge il a il est parti en mettant Youssou Ndiaye Youssou l'a remplacé euh, Youssou a été frappé par la limite d'âge à soixante-dix ans donc il y plus de Sénégalais représentant le Sénégal moi j'étais là depuis wolof wolof Youssou remplacé ko mm. parce que mais nag Youssou man man man maa nga foon mais maa nga foon ligue athlétisme li ma nekkee président de fédération internationale d' athlétisme novembre 1999 la ñu élire ma le 4 le 9 décembre 99 euh, hmm. donc ma itam ma ma toog fa mais comme boo juróom-ñetti fukki at da nga da génn maa ngi génn le 31 décembre kii 2013. maanaam yaa ko jox leng bi. waaw léegi waaw léegi mën nañ ne maa maa jox maa ko jox leng bi waaw. waaw lan la représenté lan la mën indil euh, maanaam CIO e moom Mamadou Diagne Ndiaye. defe naa li ñuy wut CIO e mooy koo xam ne ginnaaw toppatoo sport am nga vision d'ensemble suñu société société bi. am na foo fu am na bunt yu bare yoo xam ne boo fuggee mu ubbi ubbeeku. parce que sport dañ ko daan considérer rek comme benn fo quoi loisir la woon léegi nag dem na ba ñëpp d'accord ne activité essentielle la muy sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel mu mënti doon mënoo def dara loo xam ne boo ci boolewul sport du gën boo ci boolewul sport du gën ñëpp d'accord dañ ci Nations Unies Euh, temps yi ma nekkee ministre boo leen daan wax affaire yi sport dañ leen daan amuñu temps ñu perdre amuñu am temps temps à perdre léegi ñooñu fëgg naan ñu dañu bëgg ngeen dimbali ñu pour la paix ñoo ñu bëgg ngeen dimbali ñu pour le problème environnement et cetera ku mel ni jaaña nag nga xam ne personnage la boo xam ne laal na fu nekk xam nga bariwul bunt yi wuy fëgg di ñu ubbeeku ba ku baax la ci euh, organisme bu mel ni CIO e may argumenté ñoom loolu laa wax danaa leen bu même burul président comité olympique à titre individuel war na mën a dugg que euh, CIO e jërëjëf